voilà mbokk yi nga xam ne yéen a seetaan seen émission Kouthia Show tey nag di altine 21 mai 2012 ñu ngi am mbégte ak contentement bu mag di jégalu nag ci mbokku téléspectateurs yi xam ngeen ne depuis àjjuma euh, dimanche euh, safrala altine talaata àllarba euh, ba alxames même émission yi ngeen doon seetaan daf ñu fekkoon ci liggéey bu yaatu bu ñu demoon ca réewu Gambie ñu ci profité nag duñuy waa Banjul ak waa Gambie yëpp gis nañu nag ndam bu rëy bi nga xam ne télévision Futur Média am na ko ci biir réewu Gambie boo nekkee Gambie day mel ne yaa ngi Sénégal ndax quartier yëpp ak télévision euh, yu bëri ci ay kër ci diwaanu Gambie ak ci goxu Gambie yi dañuy seetaan TFM foofu demee nag kenn ku nekk dañ lay laajte dañ la laajte diw ana diw ana cameraman diw ana réalisateur bi ana ñii loolu mooy wane nag Gambie ak Sénégal suñu ay mbokk nañu weeru yàlla laa fas yéene def émission pour sargal waa Gambie dalee ko tey ci le 21 mai ba le 21 juin chaque jour dinañ wax ci Gambie ndax nag nekk na dëkk boo xam ne nañu yaatalee TFM ci seen ay gox ak seen kër amuñu njukkal bu ñu leen delloo dul di leen sargal weer boo xam ne un mois de euh, de de de promotion pour euh, euh, waa Gambie ndax dañu nekk ñoo xam ne wax dëgg yàlla bu fekkoon nañu topp kenn ku nekk rek seen ay dédicace kon émission bi duñ ci wax dara ndax ñoom ñëpp bëgg nañ ñu tudd leen ndax nit ñu baax nañu ndax yëg gi ñu yëg. li nga xam ne mooy Télé Futurs Médias ci émission bu nekk nag booy xalaat rek nekk am nga cay soppe mënuñu boole ñëpp tudd leen waaye nañ gërëm ñi nga xam ne wax dëgg yàlla dañ ñoo jege fexe ba gis ñu mu nekk mbégte li ñu def tey nag programme bi xaasum dia mu ngi ci buñ jógee ci xaasum jaa danañ dem ci Jaliba Kouyaté bi nga xam ne moo doon def anniversaire foofu am beneen feem boo xam ne dañ ko ci dugal dem ci tamit yeneen programme yoo xam ne surprise la nànk li ñu leen di cuqee rek ci biir di leen ko compal mooy Ousmane Ngom ca boppam nee na ragalul ku ko audit te mu ngi xaar ñi nga xam ne dañ ko fas yéene audit këram Madické Niang jógee ca Màkka ànd ak ki nga xam ne mooy El Hadj Abdoulaye Wade ñu bëri nag doon tuumaal ka maître Abdoulaye Wade bi mu demee ba tiim Kaaba ga ko doo dugg ci biir yooyu yëpp nag dina ci indi ay leeral bala ko bëggee xam topp lañu Welcome to the Gambians show. Kucha show is very good. All right now, because the show is a lion plant, replaces what Gambia, Serekunda, by plant. ci wet gi mais Gambie dafa fa leere mais mais mais mais Madou Gambie dafa fa leere mais je te jure dafa mel ne maa ngi woon Paris wala maa ngi woon Londres wala maa ngi woon Jamaane ndekete maa ngi Gambie gi rek mais Gambie neex mais parce que yàlla yàlla woodu je vous rappelle vendredi incha allah spécial Yaya anniversaire Yaya Jammeh fii ci Kouthia Show